seen site Dakar Matin moo leen di seen revue de presse ak Pape Alé Niang tàmbale yër yéenekaay yi ak Idrissa Seck ndax nag wax fa dëgg neex yàlla gësam na bu baax a baax Macky Sall fàttaliku leen démb rek maa ngi leen di wax ne Idrissa Seck nee na Macky la nga xaatim ak Mauritanie li jëm ci wàllu pétrole ba gaz bi siiwal ko Macky da daan tànqamlu waaye bii nag tontu na kii nga xam ne moo di idri sa Seck enquête ne Macky daal dafa doon jàngal Idrissa Seck nan la état di doxee l'observateur moom yokk ci doosam na ki Sall dafa massacré kii di Idrissa Seck lu mën a amit ba dees Macky Sall daal tontu na Idrissa Seck lim ko tontu nag lenn la ne ko ñàkk a xam doxalinu relation internationale ak nguur moo tax ngay foog ni mën nañ signer accord mu nekk secret uppercut la envoyé ki nga xam ne moo di sa Seck loolu ñeen kay bi de ko wax waaye sa Seck daf ko esquiver daf ko mbas ba pare nag dolli moom it beneen uppercut jëmale ko ci ki nga xam ne moo di Macky sàll na ko président <laughs> waxi ku daanu seret ngay wax waxuñu loolu débat bi bu ko daw génneel accord yi génneel accord yi ñu xam lu ci biir rax ci dolli am na beneen bu ma la duut tontuwoo ci moo di Petro Tim wax ci Petro Tim laa wax nga wax ci le quotidien ña diggante Macky ak Idi gaz rek moo ciy xeeñ Macky bu nekkee ne day tancé Idi Idi fi mu nekk nii mi ngi ko dar ni dar manko du ko bàyyi benn yoon na leer lépp na leer Macky ca booba ma ngay manœuvrer ci plan politique yéen kaay bi Les Échos yëgal ñu ne yónni na premier ministre directeur de cabinet ministre de l'intérieur ñu yóbbu njaalu politique ca Bamba Fall fi mu nekk nii dañ daan mepp Bamba Fall premier ministre na ko Bamba yow nit dëgg nga loolu laa gëm te fii ci Médina tekki nga fi dara de Macky Sall sa grand frère la première dame moom mën nañoo wax ne sa sœur la loolu la ko premier ministre tontu Bamba Fall moom it tontu ko ne ko li ma président defal. kontaan naa ci lool te dinaa ko fay am naa ci reconnaissance Vox Populi na Bamba Fall mii <laughs> ay Bamba Fall Bamba Fall mii Vox Populi moo ko wax enquête ne Bamba Fall daal soo sàgganul mu ngi ci saal bi ñu koy maquiller mu waaj dem. ci maquillage bu saf sàpp fekk ji kii di Macky Sall euh, dafa mel ni Bamba day dellu si exil loolu l'observateur wax tey ji bu déggee kàddu waxam Bamba Fall lu mu wax nee na réew mi su ma soxlaa dinaa taxaw te nag xooluma ci parti xooluma ci kenn Macky Sall sama grand frère la <laughs> ñu yemandi ci foofu procès xalifa Sall di wéy ba tey ji yenn kaay bi di laas na nguur gi 6 milliards 830 lay laaj xalifa Sall fi mu nekk nii 10 millions yi nga xam ne Ousmane Sonko yëkkati woon na ko ne député yi fi mu nekk nii ku nekk dañ leen ko fas yéene jox tàngal na jëpp assemblée nationale majorité bi nag mere lool Ousmane Sonko ay miru ñi ci biir yéenekaay bi di Les Échos ne Sonko li nga fi wax yëpp ay kàcc la Sonko xool ko na ko yow tamit kàcckat bu mag a mag nga ñes ne moom mën naa waat ci Alxuraan ne dugg ci boppam mustu dugg sax su yurum lu ñu mel benn député di xas Sonko Seydou Diouf ne député yi waaye waaye defaral la leen seen toogaay seen taxawaay ñaaw na lool des ba tëjee ak yéenekaay bi Les Échos duñu yëgal ne CICES fi nga xam ne LD Debout foofu la bëggoon amal lii di congrès fi mu nekk nii si CICES bañ nañ lu ñu mel waaye nag waa LD Debout nee nañ responsabilité ba mu saf sàpp yéene bi di laas ne médiate de la république Alioune Badara Cissé ne na kenn mësu ko boole ci wàllu dialogue politique bi eden mën nañu wax ne alternance moo fay am Awa Wade nee na day bàyyi yéen kaay bi di laas ne Awa Wade mi ngi jàngal ñoom ma dem ba Sock Guiro mi nga xam ne dañoo ngiiru rek riigu nag ci poste yuñ toog nu duñ fa jógee enquête ne jox kàddu met El Hadj nee na équipe nationale dirigeant yi ko yor ñoom médiocre Papa Sow Ama Baldé yéen a kab les échos ne Assane Ndiaye mas na kii di Bougane Gueye Dany signé na ak TFM moo fas yéene wane combat bi jërë nga jëf dégg mën di si jëm sin si Dakar Matin point com incha allah